Pape Matar Sarr Papito topp naa ko ba ay statem waxoon naa leen ko information bu ma ci amee dinaa ko indi waaye alhamdulilahi rabbil alamina gone gi lépp dinañ ci dikk ci information yi wérte wóor ginnaaw bi ñu doon nuyoo ndax nuyoo bee njëkk sant leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam xibaar yi euh, dinañ leen ko ñaan ngeen def seen i abonnement yow mi ko def ba pare nag ma remercier la bu baax a baax cant gërëm ñeel na yow ko defagul coppate ko ndax day tax lépp lu ñu laal ñu mën koo am ñu commencé ko ba la nu ëgsi ci stade yi ci fi nga xam ne mooy occasion bi bit bi bi mu ko dugalee di wane mbégteem ak cofeel gi nga xam ne xol bu sedd guy ngeen gis ni ma ko kosee nii ak rond bu rouge bi comme dijoor ba moo jiitu ci li nga xam ne mooy euh, célébration boobee nga xam ne cofeel rek la ca doon wane waaye cofeel googee daanaka mujj naa jur leneen ngeen gis ko mu am solo bu baax a baax bi mu jógee ci li nga xam ne mooy célébration bi moom mii di euh, Papito Pape Matar Sarr ngeen gis ko la docteur yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Tottenham man ñëw coytu xool tànk bi am na lu ci xoosu comme yéen ñëpp ñi daanu ci ab jànj asoo ba jóg xoos bi nga xam ne moom ngeen di xoosatu bu ndaw loole xam ngeen ni bu baax a baax teew leen a jóg dem doxi seeni soxla loole nag moo daloon gone gi ngeen gis ci tamit beneen côté bi mu tànku càmmoñ bi nga xam ne daanaka moom it euh, moom la mujj a teg am na ay quelques jafe yoo xam ne moom laa leen di wan ni ci image bi nga xam ne euh, moom ngeen di gis mu nekk tànkum di jor beeg bu càmmoñ bi waaye lépp nag mujj na jur tawféex ci gone gi ndax xam naa ni boo amul sens ñaan yi ngeen doon ñaan ma du leen ko doon sant ak ñi ma ko santul ak ñi ko dégg ak ñi ko déggul ñaan yooyu boo amu sens dana euh, wuy ji kookee nga xam ni moo nekk papito Pape Matar Sarr lépp pour doon ci moom jàmm ak salaam ak tawféex maa nga noonee stade bi nga xam ne mujj na ko dugal ak fotop lii la di moom gone gi ci boppam di xam le ni lépp jàmm lépp tawféex daanaka tiitaange moo ci amoon waaye lépp nag teguwaat na ci ordre mi ngi ci jàmm ak salaam moom mii di Pape sa Sarr Papito waaye ngeen dolli ñaani ndax bu ñu sukkandikoo ci tàggat ah, di ah, joxtaayu xibaar boo xam ne bu am solo la gone gi dana dellusi fii ci Ndakaaru fii ak ñaari fan séngam pour mën a dem fekki gone yi